ngir sax ñu xam ne li muy jaay baax na dana di tuddaale fa mu ñore mbaa fañ ko defare bu ne daamuri yaa muus dana fekk ñooña xam loolu bu ne min maali intilias yaa burtuqaal dañu xam loolu buñ ko waxee ne li ñuy jaay lu baax la ko defee jigéen ñi tàmbalee jënd ashonru adifu danaa ñawante xalal baa'ixiina ci way jaay ña almutajawwiliina ña di wéwandeelu ashtari danaa jënd minhum ci ñoom uhibbu danaa sopp an yakkoonoo ñu nekk aksara di gën a bari nazaafatan ci ak set wa aqal te gën a néew tashwishan ci ak trouble aw siyaaxan wala yuuxu fi turuxaati ci yoon yi ba ne ñuy jaay di wëreelu daal dama leen di yërëm danaa di jënd ci ñoom sax waaye bu ma sañoon nag ñu gën di sàmmoon teg set tey wàññi ni ñu trouble ci mbedd yeeg béréb yi jaayukaay yi ak yuuxu ñu yuuxu ci yoon yi daal bu ma sañoon ñu wàññi ko mu ñëw ci at taw sion yëgal ne anaaman saamaayu kii waaqifun aji taxaw laa xinda muftaraqi iddati turuqin fa Carrefour lu bari ci ay yoon muftaraqu turuq buñ ko waxee mooy Carrefour Carrefour raïchiyati nuy principal mooy yoon yu mag a mag fii Bayruut ci Bayruut loolu mu ne ha anada ha ana da mooroon cosaan dañ ko faral di bindee noonu rek dane maa ngi nii nekk fi benn carrefour boo xam ne ay yooni yoon ñoo fa teqalikoo te di ay yoon yu mag yoo xam ne yi gën a rëy lañu ci Beyrouth muy capitalu Lubnaan antaziru maa ngi néggandiku muruura hada sayli wéyuk mi la yol maanaam jàlluk mi la wal alazimi mi aji rëy min assayaaraati ci ay oto washaahinaati ak ay camion allati ya nga xam ne tazrahu danañu natt chawaarix alxaasimati rii capital bi al lubnaaniyati bi ko jóg lubnaan dahaban ci ak dem wa iyaaban ak ci ak dellusi li ajji taasa ngir ma jéggi ab tarixa yoon wa muttajihan mbir bu may aji jublu ilal madrasati jëm école dane dama taxaw ci benn ci carrefour yi di néggandiku ndax oto yu bari yi romb yenn yi sax ay camion lañu te baaxoo dem ak dikk ci yooni Beyrouth yi naa taxaw ba oto yi jàll ndax ma mën a jéggi nag yooyu école faj atan ci lu bett rek sami atu dégg naa sàdd matan ab tampon ab sok xawiyatan bi aji foor istarxat boo xam ne sàmm na wala nga ne wëlbati na attiré na intibaax yi sama attention maanaam yoo intibaax ak yeewu rek moom la fa isa bii am ti lu may mayam ci saa bopp rek ushaahidu may jàkkaarloog miqdaaran ab kem xayra qalilin boobu du aji néew minal burtuqaali ci orange yeta daxraju muy bérangu xala tariix ci kaw yoon wi wa ida bi xamaalin am ci lu may mayam ci ab làppatoo wala nga ne ab yenukat rek xarimin bu aji màggat miskinin ku di ab miskin yanzuru mi ngi xool ila hadihi suurati jëm ci wile melo ci boo defee hadihi suurati muy saat dañoo bind fii nag ila hadihi sawrati muy asawratu bi firi ak jeqiku bàyyikoo ci saara jeqiku na waaye daa mel ni daal xëy na mool bee jum waaye ila hadihi suurati rek la jëm ci wile melo bi xëy nin ci ëbbët mutaallimatin bu di aji metitlu mu ne ci lu bettee bett rek ma dégg lu mel ne benn sob maanaam mel ne dara dafa dal ci dara loo xam ne mënuma koo ñàkk yëg ndax day sog bu am doole ma xool rek gis ndekete dafa am ab yanukat ab làppatoo boo xam ne am màggat la mu néew a néew doole moo yoroon nag orange ci xëy na oto dal ci kawam mbaa dara tax nag orange ci tuuru di béréngu ci kaw yoon wi moom làppatoo boobu di am màggat nag muy xool mbir mi ni mu demee ci bëtub metti lu mooy am na lu ko metti daal ci mbir mi waxadd xamala te fekk na mu yenu xalaa zahrihi ci gannaawam sunduuxan ak kees minal burtuqaali ci orange baynamal aaxaru ba nga xamee ne kees ba ca des yar xudu dana nelaw xaani an mbir mu muy aji neex ay nelaw xalal ard ci kaw suuf si dafa mel ne làpptoo boobu di am màggat dafa yenu woon ci gannaawam yaari kees yi orange benn bi nag bi dara dalee ci moom la daanu orange ca tuuru waaye jëmmi kees ga ci boppam moom ma nga ne dégg ci suuf ba tax mu naa bay namal aaxar yarqudu xaani an xal ard maanaam kees ga ne dégg fi suuf rek yëngutuwul deful dara xëy na moom lay wax naa ba ca des ma ngay nelaw nelaw yi neex ci kaw suuf sa kon yaari kees yi genn gi moom mi ngi mu yenu ci gannaawam ba léegi kees ga ca des nag moom la orange ca tuuru mu ne dégg mel ne luy nelaw ci kaw suuf falam adri xamuma ma haadihi alquwatu lan mooy bile doole allati bi nga xam ne dafa at nii jiñ na ma ilaqtihaami tariixi jëm ci ñaaj ci yoon wa xayra mubaalin mbir moom duma aji faale bi sayaadaati ci oto ya wa shaahinaati ak camion ya ajmahu maa ngi dajale al burtuqaala orange ca waxad xamala yenn xamali sama jëf ji baxdat talaamis lenn ci elew yi war rijaali ak góor ña xalaa musaaxadat yi ci sama dimbale fii muhimmat yi ci sama mission bi mooy sama yitte ji innaha naka moom daal wala shakk amul benn sikki sàkk ruuxu taxaawuni mooy ruuxu dimbalente allati ka nga xam ne xassa jagleel na allahu yàlla bihaa ca moom al insaanu nit mu ne man daal yëguma lu may mel ne dañ ma bu max ne ma ay ca yoon wi kat pare nay oto yenn yi ay camion waaye dalal di waaxu dajaleel góor gi orange am ji tasaaroo nee na mënumaa xam lu ma bu max dëgg dëgg daal mënumaa dogo ci lu ma bu max ne ma ay ca dalal di waaxu forle ko orange ji ak lu yoon wi danger danger ma daal tàmbalee for orange ji di ko dajaleel góor gi yenn elew ak ñenn ci ay góor séen ma xam ne li may def baax na ñu daal dikk di def ne man di for orange ji dajale mu ne xam naa loolu nag yàlla ci boppam moo bindee doomi aadama ci dimbalante ba bu gisee loo xam ne xolam da caa jeex lu mu ci man rek moom doomi aadama dana ca taxaw ci dimbalee ko moroomum doomi aadamaam wa fi asna i zalika ci biir loolee kaana nekkoon na alxamaalu yenukat ba wala nga ne làpptoo ba xadd wadaxa di teg as sundooxa kees ga al axara ga ca des xalal ard ci kaw suuf wa bada atte mu tàmbali maxana ànd ak nun xamaliyatal inqaasi liggéeyub sowe ga maanaam liggéeyub sowe orange yi daanu laakin na bada sayaaraatil autobus yi waaye lenn ci oto yi autobus yi mooy oto kaar yu mag yi wa sayyaaraati siyaaxati ak oto yi tourisme yi aalamahum metital na leen xaasa taaxuru gile yeex fatafiqoo ñu tàmbali yuqaliquuna di firfiriloo aljawwa jaww ja bi aswaati abwaaqihim ci kàddu seeni klaxon mooy seeni cornet kalam naa ba te faalewunu bihim ci ñoom nee na ci biir loolu nag yenukat bi muy làppatoo bi xam nga ma nga yenu woon ni mu la ko waxe woon genn kees ga ci gannaawam waaye da daawal bëtiku nee na kees googee mu yenu woon mu teg ko fi suuf ànd ak nun nag ndax nu for orange ji nga xam ne moo tuuru biñ sëggee ànd ak moom nag nuy for orange jooju nag yenn oto yi kaar yu mag yi ak yenn oto yi tourisme yi dañoo yàkkamte yàkkamte ba nga xam ne li ñuy def dafa yéex ci ñoom tax nag ñuy sotti seen klaxon yu am doole yooyu di klaxon rek maanaam di corne rek corne yu bare bari di wane leen jóg leen yoon dañoo bëgg a jàll mu ne waaye faale wuunu leen noo ngi def li ñuy def rek waxi ndaman taxay naa ba nu noppee min jamail burtuqaal yi ci dajale orange ca nazara xool na alxamaalu yenukat ba ila sunduxi jëm ca kees ga almuxattami ga di guñ dammte wa ilal burtuqaali ak jëm ci orange ja almajmuuxi jadi juñ dajale xal ard ci kaw suuf xurbaxoo ci wetam wa am xanate mu janal fi tafkiir yi ci xalaat falam at axar te yéexuma xan fahmi muraadihi walis dégg ak bëggam mooy xam lam bëgg wa asraatu tema gaaw ila ahadil xawaaniiti jëm ci benn ci butig yi astairu di àbb xat duuman ngajju ab daajukaay daal wa bidxata masa miirin ak lëf ci ay pont yu wax quelque pont qaddamtuha yoo xam ne jox naa leen ilal xammaali jëm ci yenukat bi fa zaharat te feeñ xalaamaatul irtiyaaxi màndargay sigire mooy maareeg mbégte xalaa wacc yi ci kanamam wa daxaate mu ñaan lii ñeel ma bi tawfiix yi ci dëppaleeg yàlla wantazartuhoo te ma néggandiku ko xalilan tuuti xataa aslaha ba mu defar as sunduuxa kees ga fa aawantuhoo te ma dimbale ko xalaa mal ihi ci ak duyaatam bil burtuqaali ca orange ja bi nu dajalee orange ji nga xam ne moo tuur woon ba àggal damaa gis yenukat bi muy làppatoo bi muy xool kees gi nga xam ne moo defoon orange ji te dammatoo gis itam orange ji dajale noonu ci wetam rek mel ni daal xamul fu mu koy def muy xalaat bi mu ne tekk di xalaat man daal naa di xam li ko jaaxal mooy orange ji dajale nañ ko nii waaye kees go defoon toj na dana aajowoo ñu defaraat kees gi door cee mën a solaat orange ji nee na man ci saa bopp maa daal di gaaw dem ci benn boutique àbb fa ab daajukaay wutaali fa ay pont ñëw jox ko yanukat bi ndaka ma def loolu gis ci kanamam mu mel ni dafa daal di bég am xol bu tàlli mu daal may ñaanal yàlla defal ma tawfiq ndax taxawaay bi ma ko taxawu ma xaar ko tuuti nag mu daal defar kees gi ma daal di koy dimbale itam ci fab orange ji solaat ko ci kees googule wa indama rafaa ba mu yëkkatee xumoo la taxoo yanam ba ala zahrihi ci kaw gannaawam tabadaltu joqalante naa wa iyaahu ak moom nazaratayni yaari xool latifatayni yu aji ñëwant mooy yu sew laa ya'lamu yooyu du xam illallah ndara yàlla maa la nga xam ne fii ma nekk na ci ñoom ñaar min maanin ci ay maanaa amma nadratuhu ndaal xoolam ga ilee jëm ci man fakkaanat nekkoon na lil xirfaani ngir xam bil jamiili ci njëkk li ma ko defal laakin nazrati waaye sama xool bi ilee jëm ci moom kaanat nekkoon na amiqatan di aji xóot jiddan lool inna ni naka man nazartu xool naa fii wacc yii ci kanamam suurata abi melaw sama baay wax wate moom sama baay yataxazabu dana metitlu min ajlinaa ngir nun kaa inan muy aji nekk maakaanat la mu nekk sanxatuhoo jëfam ja kaa inan maakaanat man nga ne ak lu man di doon rek sanxatuhoo mécceem ma alaa yëgal kaana yal na dolle nekk allahu yàlla bi xaw nit aba ci dimbuleeg bàyyi ya wa saaxadahum te mu dimbale leen xalaa tarbiyati abnaihim ci yar seeni doom mu ne nag bi lépp baaxee ba góor gi yanuwaat ay keesam na mu ko yanoo woon ci gannaawam maa ngi moom ku ne xool na sa moroom muy yaari xool yoo xam ne daal yu sew a sew la yoo xam ne yàllaa xam yàllaa xam li yaari xool yi ëmb ci ay maxnaa ak mbir xool bi ma xool moom ci boppam moom xam naa ne xoolub sant la di ma xamal ne ma sant naa la li nga ma defal ci njekk xam naa ko yëg naa ko mu ne man nag xool baa ko xool ma itam xool bu xóor la ndax sama xel dafa dem ci ne fi mu toll nii li muy néew néew doole ba yanuwaan daa am njaboot goo xam ne ku mel ne man mii maa nga ca muy sonn nag ngir njaboot ga mel ne kon mën na maa jàpp ni góor gi li muy daj moom la sama baay daj moom la bàyyut keneen di daj ci métier mu nekk te lépp rek bëgg a taxawu njaboot geeg doom ya ba tax mu ñaan yal na yàlla doole dimbale waajur yi bañ mën a taxaw seeni doom ci nañ ko bëggee arrabion lool yi nag moo ci topp xuluulu fasli rabihi ak sik jamonoy lool yi fii matla'i fasli rabihi ci njëlbeenu jamonoy lool yi tazharu dana feeñ asam su jant ba li muddati ñeel ab diir tawilatin bi aji yàgg ba'da tijaabiha ci gannaaw yiróom nga yiróom nga mooy làqtoom nga bil xuyoomi ca niis ya chitaan ci faslu chita yusbihu dana xëy a taqsu climat bi daa fi andi aju nugg wa taxmaa tey tàng a turbatu suuf si tan moo dana màgg al budóoru jiw ya mooy yañu ji danañu fonki fil ard ci suuf si tatafattaxu dana fet baraayimul awraaqi tóortóori xob ya wa ak maamu zahari ak kambooti tóortóor ya baraahim jamhu borhum la al borhum daañu koy wax tóortóor bi nga xam ne dafa def rek noonu ab kutumbal te fettagut tuxat yi dana muur al arda suuf sa tabaxatun ab catégorie jamilatun bi aj rafet minal xush bi ci ñax mu tooy wa zuhuri ak i tóor tóor mu ne bu loolu bi dee door a dikk da ngay gis jant bi di feeñ bu baax te fekk na ci jamonoy sedd bi moom daanaka nun daw nu ko gis ñoom buñ tolloo ci sedd daanaka jant bi du génn mu ne nag bu faslu rab yi ñëwee ñu gis jant bi tàmbali génn ñu koy gis lu yàgg a yàgg su boobaa itam climat bi day tàmbalee tàng suuf si tàmbalee tàng lañ jiwoon ci suuf si tàmbalee funki mel ne day sax nga gis xob yi def ay tóortóor tóortóor yi tàmbalee fet yi meññ itam seeni kàmboot tàmbalee jëm ci meññet boo xoolee kaw suuf yi gis mu tegu aw dàll woo xam ne dàllu ñax mu tooy lay doon ak i tóortóor maanaam rek kaw suuf si ñax mu tooy ki tóortóor da koy daj ba doo seen suuf si wasfu rabia arrabiu loolu ajmalu fusooli sanati moo gën a rafet ci seesooy at mi fii ci moom tastan lay jolle ashihatu shamsi ceeñeeri jant bi tudi u dana leeral al arda suuf sa tabxasu dana yan ak dif a nugg ga mën nga ne tabxasu dana dekkalaat ak dif a nugg ga fil ajji saami ci yaram ya yan tarixu dana départ annaasu nit ña min maxaabi ihim bàyyikoo ci seen làqtukaay yugaadiroona danañu bàyyikoo manasilahum seeni kër yàq sudoona danañu jublu waaye nag yàq si xasada yàq si mel na ni moo ëpp yàq si doona danañu jublu albariyata àll ba yusbihu dana xey manzaru tabihati xolukaayu nature bi jamilan di aji rafet tuksa def na sang albasaatinu jardin ya bil anshaabi ci ay ñax yu tooy wa zuhuri ak i tóor tóor tóoriqu dana sëq al ashjaaru garab ya wa tushiru te ñu tóor tóor tujaddidu dana yeesal ak tuyóoru njanaaw yi binaa a wukkunaatihaa tabax seeni tàgg taxoodu dana dellusi ak tuyóoru picc ya alxaabiratu yi doon aj romb rek jàll mooy yi demoon tukki woon rek di dellusi tu saq siqu dana sab as sunoonoo picc as sunoonoo fil fadaa yi ci jaww ji mu ne loolu moom moo gën a rafet ci mbooleem saison yi at mi bu dee ci ñoom ci jamonoy lool li jant bi day fenk ceeñeer yi génn bu baax am doole su ko defee lu mu gën a jëm ci bëccëg gën di am naaj yaram yi gën di nugg gën di tàng nit ñi tàmbalee génne ci seeni béréb bàyyi ko seeni kër jëm ca àll ba boo xoolee nature bi jaww jeeg àll bi ni ko yàlla binde mu rafet lool boo gisee jardin yi mu bari lool ñax mu tooy ak ci tóor tóor mel ne ñax mu tooy ak tóor tóor dafa sàng jardin yi garab yi dañuy sëq ba noppi di tóor tóor picc yi ngay gis ñu bëgg di tàggaat seeni tàgg di ko defaraat mel ne kuy tàgg tàgg yu yees nga gis njanaaw yi nga xam ne ñoo demoon rek te baaxoo dem ak dellu si ñu tàmbalee dellu si nga dégg picc ak sunoonoo ñuy sab di ci cii ji ci jaww ji kulluma lépp li nga xam ne fit tabiati nekk na ci nature bi jamilul aj rafet la albaxaru géej gi yusbihu dana xëy haadi andi aji dal talmahu dana melxati safxatuhoo kawam nga taxta ashihati shamsi ci roon ceeñeeri jant yatlibu dana teey mooy dana neex at tanasuhu féexlu mi promenade fi zawaarix yi ca looca ya taxloo dana neex ziyaaratul yanaabihi visité fontaine ya al mutafajjirat yi aji fette min bay ni suxóor yi ci diggante xeer ya yene moom daal jamonoy lool yi moom lépp loo xool rek ci jaww jeeg àll bi day rafet géej gi day dal du nekk lu tàng lu bari am riir ak coow kaw ndox mi boo ko dee xool day melxati ndax ceeñeer jant bi dafa wàcc ci kawam mooy boo dee xool ndoxum géej gi noonu lay mel yooyu jamono sax nga dugg ci looca di féexalu ci ndoxum géej gi day neex ba tey béréb yi nga xam ne ñoo amee ay ndox yu yuy fet doon ay ballukaay ñu koy wax ay fontaine dem ci béréb bi mel noonu day neex maanaam dem visité fontaine yooyu ndox may fette ci diggante doj yi day neex lool am musahaatu ay xeeti féexlu ay promenade an nusahaat jamhu nusatin la man ngaa jàng an nusuhaat man ngaa jàng an nusahaat fii fasli rabihi ci jamonoy lool yashuru dana yëg annaasu nit ñi fii fasli rabihi ci jamonoy lool bi maylin ci ak jeng garibin guy aji tumuranke mooy gu yéemu li nushati jëm ci féexlu yuxaadiroona danañu bàyyi ko manasilahum seeni kër yesta jiroona danañu luye assayaaraati oto ya alkabirata yi aji rëy yaquumuuna danañu taxaw bi rihlaatin ci ay tourné ilal bariyati jëm ci àll ba yafrushuuna danañu lal bosu taxum seeni tappi fawqa bisaati tabixati ci kaw laltaayu nature bi al muzarkashi ba di buñ baroode bil alwaani ca couleur ya al badihati aji yéemu yakuloona danañu lekk wa yashraboona te ñuy naan wa yarqusoona te ñuy fecc yun shidoona danañu sadd al anasida xeeti way ya al xamaasiyata yi ko jóg cembarte mooy cawarteeg maare yastanshiqoona danañu fóon al xawa air ba an naqiya bi aji set ya chammoona danañu fóon su bàyyi ko ci chamima muy faxi la moom kon ya chamm lay doon arrawaiha xet ya azzakiya tey aji bonni yax madoona danañu sant allah yàlla xalaa alaihi ci xéewalam ya dane bu dee jamono lool yi moom nit ñi dañuy sawar ci génn di féexlu ji mel ne lu leen yàlla nattoo la sañ ñu koo bañ ngay gis ñu bàyyi ko seeni kër di luye ay oto yu mag a mag di def ay tournée ci àll bi buñ demee dañuy fekk àll bi ni mu rafete am ñax ak ci tóortóor ñu lal ca seeni toppi su ko defee nag di lekk ka naan ka fecc di wayantu wayu cembarte ak wayi maare ak wayi xol bu sedd di noyee air bu neex bi di fóon xet bu neex gi nga xam ne moo nekk ci àll beeg tóotóor rafet yi di sant nag yàlla ci xéwal yu bari yim leen xéwalee ashooru waxib danaa sopp faslal rabihi saison loolu faslal bahjati mooy jamono yi taar wal xayaati ak dund waxib danaa sopp atanazuha féexlu bayna axbaani tabixati ci diggante wàlli nature bi xabasa baax na lii mooy lii di amul moroom du am moroom daal law takkoonu doonte dafa nekk kulul fusooli mboolem saison yi karab yi mel ne loolu mu ne mën daal jamonoy loolu moom dama ko bëgg lool ndax day jamono ju am taar te di jamono ju dund ju neex a neex damay bëgg lool dem féexlu ji ci àll bi mu ne ak a neexoon sax mboolem xeeti saison yépp mel ne loolu li maanaam yent jamono yi nekk ci at mi yépp daal yett yi ci des mel ne loolu li التوسيع في صباح أحد أيام الربيع تسبب بنتي فني لولي الجميلة فن يدي أجرفت الجميلة نعتلتي أيامي كانت نكون السيارة أطبة تنهب تجير جير بنا أجنون al arda suuf sa nëxban ak giir giir bu dee ci wolof mooy di njëkkante dara di ko fab mel ne bëggoo kenn jëkkale ci ni ko dongoy daara yi defee di giiroo ab sarax bu ñu leen saraxee bu ñu nee nag oto bi da doon giir suuf si mooy dafa doon daw daw bu gaaw a gaaw bu mel ne dafa am kum doon xëccool bañ mu ëppale ko ci yoon wa muy aw muttajihatan mbir mu muy aji jublu ila tarabulusa jëm ci tarabulus alfayha yi bay aji yaatu wa dhalika loolee lit tamatoi ngir bànneexu bi manaziri basatiniha ci xoolukaayu ay sardeem am na benn bis ci fani lool yu neex yi ci waxtu suba nu nekk ci oto jëm Trablus oto bi gaaw lool mel ne dafa am ku muy girool yoon wi muy suuf si te giroo ko kenn waaye rek nam doon gaawe daal moom yéeme na fekk boobu danoo bëgg buñ demee Trablus mën a xool jardin ya ak na mu rafete mën caa xéwlu ci nanuy xoole sarde yooyu wa baada safarin gannaaw ab tukki tawilin bi aji yàgg mattaatu bopp xéewal naa mattaatu bopp bànnee xal naa an nazara xool ba fii ci moom bi jamaali saahili ci taarub tefes ga allubnaani yi mi ko jóg libaa ida bi am ci lu may ci man rek astan chiqu maa ngi fóon maa ngi banantiku raihatan xet xatiratan guy aji bonni mooy gu neex innaha naka moom raihatu zahril laymooni mooy xeetuk tóortóori limon min basatini tara bulusa ci chardey tara bulus allati sarde ya nga xam ne wasalna àgg nanu ila madxaliha jëm ci seen bunt qurbal baxsaasi ci wetu baxsaas tumat tajahanaa topp nu jublu naxwa baabi tabbaanati fa féeteeg buntub tabbaana wala nga ne fa féeteeg rek baabi tabbaana xay sustarax naa fa nga xam ne fa la noppalu xinda aqaaribinaa fa sunuy jegeñaale bin xëyee jëm Trablus danoo yàgg ci yoon wi lool ndax yoon wi daa sori waaye lépp rek noo ngi bànneexal sunuy bët ci gis tefasug liban gi ni mu rafete ci lu ma bett rek muy xet gu neex a neex gu may xeeñ ndekete xeetu tóor tóor yi limoo la limoo yi nga xam dañoo nekk ci jardin yi Tripoli ban ci àggee ci bunt ba footu bax saas foofu laa yëge xet gu neex lool te mooy xeetu tóor tóor yi limoo ya lu door a jàll nag wuti ba